waaw doo doo doo yàggee répété rek dina mujj dugg tur yàlla tamit noonu rek la waaw Cheikh Umarul Fouti radiallahu anhu soo ubbee rimaax ci première euh, kii bi euh, introduction bi moo ngi wax loolu mu ne euh, yàlla subhaanahu wa taala wali yow mi képp kum ci bëgg a fal mu ne day day mel ni ku lay dalay parrainé benn tur yàlla waaw Cheikh Omar noonu la ko waxee lu lu doy waar a waaw mu ne day mel ni dalay ne benn tur yàlla tur yàlla boobu day dem ba mel ni euh, dafay dafay jaxasoo ak yow nekk ba ba nga nekk ko tur wi nekk la waaw moo tax góor yàlla yi ngeen di gis mais léeg-léeg da xool ba ci àgg nga xam ni euh, noonu rek la mën a demee man bi ma liiree loolu laa laa laa laa kii daal laa saw comprendre lu bëri parce que kunaas yi dafa bëri euh, kunaas yi ñoom sëñ bii xam nañ ko mooy li ñu moom la ñuy wax way ndare wala kàggu kàggu yi dafa bëri tur yàlla yi dafa bëri mm-hmm. da nga naan mais lii nan la ko gars yi di mën a si kare te léeg-léeg ñu jox la ci ay lim yoo xamante ni seen bi kooku bala nga ko doo koy jéem a def yow dong rek daanaka da nga koy mujj séddale ay fan mm-hmm. wala bu dee bis la tamit dangay ngay commencé géeye ba fañar mu soog a àgg loolu doo ci amee lu man ñaar téeméer foo koy si kare loolu yëpp mënuñu ko si kar c'est pas possible mm-hmm. waaw léegi nag ñoom dañuy euh, sama borom da leen di da leen di jox da di jox euh, parrainé leen benn tur te tur yi boo ci jàpp benn jàpp nga seen morom ñoom ñëpp waaw xam nga loolu moo tax ñun ñu sonn ñun ñoo ngi fépp ñun ñoo ngi fépp parce que dañoo jàpp ni euh, sama maam daan nañ ko wax mu ne taalibi taalibi gëléem baaxul ñu ne ko ah mu ne waaw taalibi gëléem baaxul mu ne gëléem du suur ndax su su su su lekkee ci garab gii ba caag seen beneen bu gën a sëq ne ah xaaral ma dem laal fee <laughs> noonu lay def noonu lay def noonu lay def ba ngoon jot du suur loolu moo tax gëléem ñeme xiif <laughs> waaw mu ne da ngay mu ne mu ne bunt bi daal bu dee wóor na ne am na ku nekk ci biir mu ne taxawal di fëgg rek te bul bàyyi. Mhm. su la ubbilee rek lépp baax. Mhm. <laughs> waaw mag ñu soo ñëwaan noonu la kii dana la kii na la bismillah demal. waaw yow da ngay yaakaar ni sax du dara nga gis koo xamante ni moo ngi yor ay 45000 tur yàlla yor 45000 xaatim 45000 talsam 45000 lu nekk te du mën dara du mën a def dara nga gis koo xamante ni euh, lu tuuti lañ koy jox ab yàgg naa yàgg na sax rek la yor ne ko dee ko si kër nangam te sax. nga toog ba caag rek ah, eh, li ñuy wax ne mbaax day woo moroom day woo moroomam waaw tey jii iyaaka naabudu iyaaka nasta'iin bii ma leen wax ni ni mu gàttee wala iyaaka naabudu kase soo ko jàppee nga am ku am ndigal jox la ko ah nga ku am ndigal loolu tamit c'est important ah Cheikh mar wax na ko nee si sikkar su bëree tuñ tuñi ak dajale ay mbóot yu bari mu ne taxula àgg ci yàlla mm-hmm. waaw nee na da ngay dem ci ku am ndigal koo xamante ni dafa am ndigal ci yàlla ndigal express lu jóge ci borom bi wala mu jëlee ko ci ku am ndigal mu jox la ko kooku moo lay jox dara nga def da ngay gis même salaatu fatiha bi noonu la mën ngaa sikkar ba tas euh, da ngay kii rek am ngay tuyaaba nag am ngay am ngay am ngay kii waaye doo ko jëlee ci ku am ndigal ah kooku sëñ bi weer ëpp na ci maa la ko wax weer weer bari na lool mm-hmm. nga nga am li ngay sàkku ci yàlla maa la ko wax weer ëpp na ci fukki fan ak lu teg rek daanaka tabarkàlla waaw li nga doon sàkk yëpp yàlla teg ko sa loxo waaw nga nga lépp ne fàng ne dàng ma ngoog werante jeex ci yow nag nga nga nga génn ci coow li ma ngoog moo tax euh, Cheikh Omar wax na ko nee na coono ak am na lu bëri nee na dale Cheikh Tidiane sax wax na ko radiyallahu anhu nee na ku lay jox ay ay dog ak kii mu ne dalay sonal kese mu ne ki lay dimbali mooy ki nga xamante ni da lay jàpp sa loxo ban la sa borom a ngi nii. Hmm. ok yaa ngoog sa borom ngoog. nga seet noo def yal nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp. ah ngoog loolu moo tax mu ne yàlla ku mun a rafal ci góor yàlla mi dalay dalay boole benn tur yàlla da ngay dégg sax ñu ne maam diw tur yàlla sangam la yor hmm. wala tur yàlla sangam mooy tur yàlla dañ wala mu ne man sax nangam laa yor mais du jamal jël tur wa nga sikkar ko sikkal ko cent cinquante mille lam ci am doo ko ci am. Hmm. parce que la mën naa moo ngi woon ci laa la illallah kese di ko sikkar wala moo ngay sikkar laa ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin wala moo ngay sikkar faatee yax bi di lenn bañ na ko yow kat li ngay sikkar baax na waaye ubbil na la bunt bi li nga doon wut mooy tur yàlla sàngam mm-hmm. nga ne ah ñun la waa léegi la nga doon sikkar ñaata la nga ne man daan naa def lii par exemple daan naa ko def douze mille fois par bés ñun la euh, turu yàlla bii latif bii wala xaw ma lan dee ko def rek cinq fois am na ci ponkal yoo xamante ni li ñuy yëngalee jamono yëpp nii la def seen loxo nii hmm? hmm? hmm? nii la ñuy def nii mu pare vingt du maas du passé vingt <laughs> doo leen gis sax ñooy kurus ñuy wér ce que ñii sax dinañ laasim doo leen gis sax ak kurus parce que parce que pare nañu waaye sëñ bi xam nga ni mos ku ñu gis fii nga yor saako ay pièces su euh, euh, ñaata euro euh, cinq cinq deux euros pièce nga yenu ko di dox <laughs> mais ku la gis dafa laa war a yërëm ñi am xaalis dëgg am na carte yoo xamante ni su waddee sax gars yi di i moom xaw ma gódd la koy xaw ma <laughs> am na carte boo xamante ni soo ko yoree ñu xam ni kii lu mu tuuti tuuti am na dix mille euros black la tudd waaw am loolu xaw ma ko <laughs> xaw ma ko woon kooku moom kañ dama koy seeti <laughs> dama koy seeti de xam boobu doo ko fi doo doon julli nii mu ne cëpp wadd ñi xam carte bi suñ ko gisee doo génn ñu topp la bokkut ak ki yor saako saako pièce euh, di euro kooku sëñ bi euh, cinq euro wala deux euro bokkul kooku da ngay sonal sa bokk sa mbagg dina dagg te doo génnee gars yi song la am na ñoo xamante ni ma ngoog bu ndaw lañ yor te fekk sëñ bi tabarkal la waaw yàlla ñu yàlla boole dimbali ma ngoog tur yàlla yi moo tax euh, ci loo gis ci wàllu yàlla noonu la dafay commencer ci répétition répétition bi nag day mujj nag nga daal di koy incarné soo ko incarné jeex na mu nekk la nga nekk ko moo tax duñ mujj gi loo doo ñëwee nii rek la ñuy def rek lépp faju léeg sax jarul nga leen di wax dara soo ñëwee rek xool leen ñu xool la sa aajo faju parce que ñoom tur yàlla bi lañu waaw moo tax euh, euh, góor yàlla yi biir dëgg dëgg dëgg ay jëmmi tur yàlla lañu moo tax léeg doo leen wooyee sax dañ lay wuyu fekk yow xam nga doo jàngul amoo fatxu xamoo dara ci yàlla da nga ah sa day bokkaale ndax maa ngi ko mu naan yaa diw fekk woowul diw kooku tuddatul noonu moom ba mu juddoo ci baayam dañ ko tuddee woon diw mais bis ni ki tey fekk na yàlla soo fóot na ko ba jël baasitu wala mu jël qahaaru wala mu jël latif wala mu jël zul jalali wal ikram wala mu jël xaw muhaymin wala mu jël ñaaritu yàlla boole ko wahabu razaq wala xaw ma jaamiu fattah boole ko ci moom mu nekk ko nga xamante ni doone doone euh, racine li yaa ngi woo tur yàlla boobu mm-hmm. <laughs> loolu moo tax soo demee seen raw di wax ak ñoom ñu wuy la maa la ko wax parce que fekk na boobu ñoom ma ko nekkatuñ fa sama borom kese moo fa feeñ loolu nag doo fa tollagul sëñ bi bàyyil gars yi ñu dem seen yoon waaw waa li mu wax nee na soo amul neel aw rek waaye kenn amul moom mënul nekk parce que moment bi nga wax naan kenn amul tous am na koo xamante ni poosam bu nekk moo ngi ci def un million te loolu xam nga fii la ko def pour lan soxla bu ko bett wala ku wax lu ko neex mu génn may la ko xam nga kon soxlawul xaalis boobu la mu soxla moom ci ay comptam kon yow amoo mais bàyyil nit ñi ñu am ah borom borom wànnent lu mu wax ci ci ci jant kañ sëñ bi bu ko gëm bët ya mooy metti lu mu wax ci jant bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko mere bët ya bët ya la problème de bët la mais du wéree dina wax ci jant lu leer nañ lu ñëpp di wax yàlla nañu yàlla boole dimbali moo tax kon gis nga sunu zikkar yi yi doo gisee euh, Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dooleem loolu la mooy capacité bi muy am mm, capacité bi mu am tënk la ngay sikkar suba ak ngoon parce que xam na ni du yàgge du loo loo yàgg répété rek day mujj nekk ci yow yàgg yàgg da nga koy incarné moo tax tamit dala leen seen xel bu baax dama koy wax mbokk taalibe yi man leen bu leen dugg ci dara ku ci nekk jeune doo waree jàngi demal jàngi doo waree wuti xaalis demal wuti xaalis bu dee da ngaa nekk takk soxna ubbil say bët nga raxas ba mu set nga set ku rafet nga takk ku baax nga takk mhm. te si ci des bu leen bu leen bu mu leen sonal mhm. yi leen di gars yi di sonal yëpp dara amul Cheikh Tidiane nee na sama wirdu wi kenn du ko jàpp te doo am fatku nee na soit di ko am ci moo comme ni ma ko waxee sànq wala boog bala ngaa dee da am fatku mhm. loolu dafa bokk ci yonent bi damaan Cheikh ne ko salaat faatiha ku koy sikkar bala ngaa dee di nga am fatku jeex na <laughs> loolu sëñ bi ne ko taaliba yi xam

ñun ay ñu juddoogun la ñu uti ubbil ñu compte vingt cinq mille euros wala cent cinquante mille euros jarul xeex jarul xuloo jarul jaay drogue so so sooy majeur rek di jël sa yëf moom majeur nag mën na la dàpp wala nga doobaaje dee nga majeur nga jël sa yëf kenn ku ci nekk ak fa sa fa wërsëg toll loolu nañ ko xam ñu noppalu kuy wuti xaalis wuti xaalis kuy jàngi jàngi kuy toppatoo sa bopp nekk ci sa bopp euh, euh, lazim ah wasifa euh, zikkar tayam tur hmm. yalla yi ak dog yi hmm. surtout dogu internet yi dafa worul man <laughs> ba ci dem ma netali ci cheikh omar mi ak eh, eh, ki mi bi ma ba joge maroc dama ñew setti ay mbokk talibi yu ma bokkol nek lycée ma ñew ne ana diw ñu ne ma diw mom ci biir ma waaw ñun ñep ngi fi tok di waxtaan mom mom ci biir ñu ne ma ah diw de bul ag fofu ndax daf mel dafa xawara kaaji ma ne raakaaj man xam naa ko bu baax mais moom dafa bëgg affaire yàlla xam nga am na ñu bëgg yooyu. am ñoo xamante ni yooyu rek la ñu bëgg. ay talsam ak ay kii yooyu. yooyu yooyu dafa wóor. ndeysaan léegi man ma ma ma ñëw ma ñëw ma ne ko ma ma gars ah, suñ bi tey ñëw toog waxtaan rek te bàyyi ko parce que kooku léeg-léeg sax day benn kuy dóoree yu demee noonu ma ne ko dóor man su ma dóoree man lijjanti ko de. ma ne ko ma ne ko ah ban fay yu dama koy lijjanti kooku maa ah, ma ne ko kii kooku daf maa ma man leen xaar leen ma ñëw tuuti man a boobu sama xel ñaaw na ma ñëw ne ma ñëw ne ko waaw sëñ bi yow euh, lu xew mu ne ma dara ma kii ma ne ko lan la lu lu lu bii lan la. Hmm. tilim gii lan la lii lu xew lan la ah, xanaa da ngay mu xulli bët yi ah pour ñoom xam nga affaire xam naa ne day wér ma ne ko xanaa da ngay sikkar. Hmm. ma ne kii ma ne ma ne ko kii ma ne ko yow looy sikkar looy sikkar lan ngay wér hmm. ah. mu ne ma te gis nga gars yi dañoo garaaw dañ leen di gëmloo ne mbóot yooyu ñu leen jox ku la ko mënti laaj bu ko wax. waaw ah, si si pourquoi parce que dañuy bañ nga wax ko ko ko xam ñun la kii. waaw ah, c'est vrai c'est une bombe ah, dañ leen loolu da charte lañ koy def dana loo ko defee da ngay xal ko. Hmm, ma ne ko sawaay wax ma li ngay zikkar hmm. man damay ñibbi dem sama yoon léegi yaa fi nekk fii gën fee raakaañu hmm. gis nga tur wi duma ko fii ñi mais ñii moom waxoon naa ko ca oto ba ba ñuy ba ñuy dem keroog. mu ne ma nangam lay zikkar bi ma waxee loolu ma ne ko yow premièrement liñ la jox dafa damm moo ngi mel ni tey jii nit ne la yow xamoo kooku xamul nga ne ko euh, dama bëgg dama la bëgg a jox nga def ay achat ci kii nga nga euh, sama carte bancaire laa lay jox ah nga jox ko mën nga ko jox ses euh, kii yi sax ses chiffres la non mais joxoo ko yeneen ñeenti yi trois yi

tuur wu ko gën a bari leer man xaw ma ko ñoo ngi ko tëggee ci àlaa nuuru samaawaati wal ard ma ne ko tur wi li mu gën a bañ mooy sobe dafa bañ tamit ma ne ko póon la gën a bañ dafa bañ póon bañ sobe ma ne ko soo koy def dan lay exiger yu ay ay ay ay yu garaaw lan lay exiger ma ne ko doo koy sikkar sax yére yu weex rek nga war di sol mu daal ne ma non waa ji rendi na ma ma ne ko yaa rendi sa bopp ma ne ko billaahi doo ko bàyyiwul di nga dof ma ne ko dangay ngay waajoo dof nag ndox te fogoo ku dof man xam naa ko ma ne ko billaahi doo ko bàyyiwul di nga dof te yow dof bu metti ngay dof kenn du la faj ma wax ko tur bi ba mu mat ma man kooku waa ji nee na moom lool kenn xamu ko kurul moom ma ne ko waay di wax naa la ko <laughs> ma ko wax naa la ko ma ne ko bu leen ko si kar bu leen dugg ci business yooyu yam leen ci. salaatul fatix yi lépp nga ca. ah jëlee ku fa am ndigal ci ku am ndigal jeex na nga si nga dem sa yoon wuti xaalis xam nga wuti xaw ma diplôme jàng sa njàng nekk nit doo déranger kenn kenn du la déranger yàlla ñu yàlla boole dimbali. am benn année. Mhm. Euh, sëñ Mansour Jamil ñëw fi. Mhm. daayira bi dem ziar ko. bu mhm. ziaree yenn xale yi si daayira bi ni ma. dañ ko laaj tur boo xam ne kuy mën a zikkar. ku ko waxee mu toog ba mu yàgg.

ñoo xam ne préparé wul leen xam nga dañu wax ni euh, sëñ Abdoul Aziz Al Amin radiyallahu anhu dafa ni ku am kilifa kenn du la gàggenti ko si mbedd mu ne tey ku amul kilifa jinne doon sa kilifa mais nee na jinne bu am kilifa sax du nangu nekk sa kilifa te lañu nekk dans un boo xamante ni les gens dañuy wut ay taalibe fii te avant amul woon ci tarixa tijaan yi mais léegi daf ci am parce que man damay waxtaan ak ñenn mag yi am na ci ñoo xam ne ay taalibe tijaan lañu dañuy yor ay wirdu di ko jox xale yi pour mën leen def ñu nekk seen taalibe ah, ah. te nit am na foo xam ne boo fa tolloo nekk xale man personnellement xale bu ndaw la xam lan la tolloon man ñu may wax defal sa soo sa juumee sa wirdu ni nga koy defee sa julli soo ko juumee ni nga koy defee danga am étape adduna mënoo jóg rek juddu xam nga rek daal di daw quoi loolu mbaam mi rek ñoo koy def mais dafa am benn moment boo xam ne y a des processus boo xam ne moom nga war a jaar ba yàlla jàppale li nga bëgg nga am ko mais léegi tout le monde on est pressé on a besoin d' argent il faut mais les gens ku nekk ñu ngi lay jox tur tak tak tak tur tak tak tak ah nga di ko def daf lay tëj nga jekk jékki dof kenn du la mun faj am na fi moo tax man depuis bi ñu ko kilifa gi wax ni ñu lépp mi ngi ci seen lazim ak ci seen wazifa Seydina Cheikh du como. surtout fii sax dëkk bi dafa bëri ay jinne. ah dëkk bi dafa bëri ay jinne. sëñ Bay wax na ko. voilà xalifa bi wax na ko. nee na li ñuy wax taxaw di moo tax muy wax ni danañ faral di yóbbu seen doom yi Sénégal. parce que suuf si voilà mais nee na fii dafa bëri ay jinne mais léegi tur bu nekk ñu jël ko jox ko gars yi ku nekk di wérd di wérd di wérd pour aller où ba ci biir xadara yi da ngay gis ñuy def seen whatsapp yi ngay wax nii. ku ne wérdal lii wérdal lii xamoo sax le pourquoi le gars il l'a donné tu réfléchis même pas ah yamal si jàngal ñu jàngal alquran sa sëriñ na la jàngal alquran jàngal la soo juumee sa wérd soo defee sa wasifa lii yooyu moo gën a am solo que di wérd pour am quelque chose la la yóbbu naa xoola whatsapp bi on ne pas la communication ku nekk lu la neex ngay sànni ci biir whatsapp bi moo tax genre thème yi fa ñu koy wax ak gars yi wérdu yi wérdu yi dafa dafa dafa bëri trop udah lebih yi aussi dafa bari c'est trop global bi ma nekke genera ba am bi ben xarit bo xamne bi ñu dan wëri ay bu dëgg mo dañ jitt lepp dañ mais ay jamono c'est que bu commencé di waxtaan mbirum kilifa go dal di moom nag moom fas-fas la ci wàllu daara bi yëpp ko daan taxaw. Hmm. mais du ko xëy dënnu bi rek dem Sénégal ñëw rek topp sëñ topp topp topp sëriñ am na bi mu si am bi mu ñëwee Jalla seet si mbokk hmm. toog di ko waxee ne waa léegi ñu ngi doxalee. mu jig moom toog naa si ba sëñ bi mu daal mel daal di daal di gën demee ba coow xawoon na mujj dina mujj mu woo booy di récupéré naan sëñ bi kat sëñ boobu booy ñëwee dana leen am na benn affaire bu nañ jox ku bëgg xam ma mooy kan loolu nga koy téye boo ko déclaré nga xam sëñ bi moom mooy moom mooy nga mm-hmm. ah ay ay mbooloo rek. Mm-hmm. mais instant yii waa ji moom gis léegi. <laughs> yàlla na yàlla euh, yooyu yëpp comme ni ma ko waxee rek euh, c'est pour euh, ñuy réfléchir rek. waaw mm-hmm. ah, ñuy réfléchir. Euh, tey def ndànk xam ni mbir yi lépp yàlla defar na ko ba pare. Euh, togg nañu ba mu pare raxasu lekk rek moo ci des. ku ku bëgg nag dem bay ji tool defaru ji. Euh, bay bay ji légume bay ji leneen pour togg sa ceebu bopp nag ah kooku sa affaire la ah yooyu yooyu wóorul xam nga soo xoolee. amna na lu ñuy wax euh, fake news fake news yaakaar fake news lañ koy wax ah ay fausses informations xam nga loolu du du dem du domaine mu euh, journalisme rek ak communication mais ci lépp la léeg nit ñi dañuy dañuy dañuy surfer ci fibre euh, nit ñi seen xol xol par exemple. moo tax il faut que toujours dama koy wax il faut que nitu diine yi il faut que dafa am léegi beneen taxawaay bu ñu war a am benen gis-gis buñu wara am approche buñu wara doxale ci affaire yi euh, et puis ñu am euh, gën am humilité ñom de nature ils sont humbles parce que ay taalibe lañu ay nitu yu lañu mais humilité bi may wax bëgg wax moy seen ñu wut ñu gëna a seen entourage wut ay tête ay kilifa ay informaticien yu mag ay ay kat ay ñoo xamanteni ne dañuy mën recouper ay information mais du xé dara xewé ñu laaj leen ñu wax leen li xew xam nga léeg nga euh, xool xool leen suñu fake news bu mag bi ci ci ci ci at yi ñu ñu wax ñu ne ñu wax ñu ne ñu euh, euh, le le le pape Benoît XVI ah hein, qui peut même plus marcher nee nañu moom moo dem di sànni jàmm jàmm la ba nga gis ay imam taxaw di fëgg mim mim baru yonent bi di di di di ndamu naan gis ngeen l'islam am na doole pape bi nekkoon ca kii ba moo ñëw tuub dugg ci l'islam bay sànni

waaw mais attends waa dafa xam nga sax waa loolu xam nga xam nga dañoo xam ne tijaan yi dañoo bëgg Cheikh ñu ñu waaw mais après waaw photo Cheikh la après waaw léegi photo Cheikh la waaw léegi après sax après. non non non mënut nekk sax Tamasin c'est pas bon non dama ne sax non dama ne xam nga loolu xam nga Seydi Sukoyrij moo ngi fii barki démb.

mais dañuy dañoo dañoo gëm idolâtrie dañoo gëm ay photo ay ay njël la ay ay yooyu daan naa ko xale yi man leen tekki leen seen yii tekki leen yi ngeen di takk tekki leen ko ay njël la ay xaw ma photo sëriñ beeg man leen dindi leen dindi leen ñun ñun on on est on est au au delà de la physique. métaphysique la nekk ñun te dañuy jéggi sax métaphysique dem ca supraphysique ak leneen physique. ay sidratal muntaha. jéggi nañ ko di dem. jéggi nañ foofu di dem ñun fa ñu nekk du foofu. bu leen bu leen dugg ci forme yeeg yooyu loolu su kon loolu du ñu gëm Seydina Muhammad. alhamdulilah salaam. déedéet su nekkoon loolu du ñu gëm Cheikh Ahmed Tijani. Cheikh Omar mi ne mes nag kon dinañ ko gëm. non du loolu ñu ñoo ngi ci beneen niveau. Euh, loolu xoolal am nañu ci te gis nga.

au Maroc euh, mais première leçon nous sur suñu prof bi Mohamed Benjeloun dane ci un email li ñuy njëkk reconnaître fake mail la euh, arnaque la mooy faute quand tu lis un texte regarde les fautes Si tu dis lu c'est fais attention même si ça vient du ministère de l'intérieur baa ngay dem ci tampon yaag soo yaa libéré baak lañ ca wax ak site yamu yamu ji xoolal y'a des fautes yoo xamante ni doo gisee benn faute ñaar ñett ñeent ak fautes yoo xamante ni élève primaire bu ko def nga gis ñu def ko defaat ko defaat ko taxawal xamal ni piège am na loolu da da nga koy dégg waa ji bi muy wax ci biir nee na euh, foo foo xool photo Cheikh rek mën nañ cee amee euh, shahadatu daareeni shahadatu daareeni shahadatu daareeni sahaadatu daaray ni mooy lan sahaadatu daaray ni man ba mu waxee loolu laa ne coupé leen kii y a des fautes graves yoo xamante ni ku koy wax bul koo déglu sahaadatu daaray ni mooy lan man ba mu ne sahaadatu daaray ni laa ne jàngee jeex na man leen dindi leen lii et puis kii ñëpp déglu nañ ko sëñ bi ñëpp fii ñëpp ko déglu di xoolal ba ci des mu ne dé déglul bu baax piège bi mu def loolu moo dugal ñu bëri euh, mu ne diw du ma tudd turam moom yéen ñëpp déglu ngeen ko góor gee ko ko jox kuy góor gi góor gi ku jege woon góor gi la kuy góor gi <laughs> kuy góor gi kuy góor gi léegi kon fi ne ni moo ngi dugal kilifa ya nekk ca Tiwaawan pour wane ni moo ko jox kooku kooku jox ko ko moom la Donc, euh, nous devons faire attention. Il y a eu photos photo 1830 euh, euh, et quelques le gain. de Cheikh Tiyan. Moi, je fais 1815. Presque 30 ans, ou 15 ans, ou 13 ans. Après le décès de Cheikh, tu a découvert une photographie. Lol, mon nek, c'est du soukéri. Mon nek, tu vas te faire un C'est du soukéri, c'est du soukéri. Mais c'est du soukéri, ça. Aïe, n'y a pas de farlou. Mm. Aïe, d'homme, d'ailleurs, farlou. Aïe, c'est d'homme, fexe nañu ba lijjanti ay bindam yëpp lañ ca mën superis point comme ñu bëri gis nañ ko site bi mënoo ko sax jeexal far la fa nekk ci téere ay téeméeri téeméeri téeméeri téere la ay photoom yu leer nga fa yoo xamante ne bopp neen la def yii mu toog yii mu kaalawu yii mu sukk ku ko gis xam ni kii mooy Seydi Supéri radiyallahu anhu donc Seydi Supéri na la mën a bokk ak Cheikh Tidiane euh, euh, photo ah yooyu li muy bëgg wax foofu photo bi sax man dama ne billaahi laa live Facebook bi wax ci photo la correction a été faite après juste après. wa mais dañ def attention. Hein? nan def attention. ah oui donc euh, si dañ def attention. Mm. te lolu ni ñu ni ñu bari am ñu ñu dugg ci rek. bëgg nañ ca màggal ca ca bu baax jël photo ba def ci kii def seen photo profil sax ba pare ñu soog leen wax ne leen sa waay yéen kat kii kii du ah, nañuy def attention li ma bëgg wax foofu mooy euh, euh, ni fake news yi ci information non lay amee ci ci diine ji te surtout fi mu ne ci diine ji keroog dama doon def benn benn vidéo sur la prière mais pratique mu ngi ci Facebook ak YouTube ben benn jigéen wooma mbuur la dëkk sootul moom may dégg mu ne ma man euh, sëñ bi jërëjëf ma ne ko waaw mu ne ma li li man ay gërëmee muy mu ne ma man sama xol dafa féex mu ne ma te gëj naa ko yëpp ci julli yàgg na ma ne ko nga ni ma mu ne ma yàgg na mu ne ma ndax da ngay gis koo respecté mu toog wax ci julli loo xamante ni da nga naan ah bismillah d'accord mu ne bu subaa nga gisaat keneen koo gën a respecté mu weddi loolu yëpp teg leneen mu ne bu subaa nga gisaat keneen teggi loolu wax leneen mu ne ma dootoo xam te ñun amuñu niveau bu ñu mën a toll

mu ne jàkk duñu fay xex xëccoo élément kese la mais ñëw ne taxawul ñu julli amul amul xex amul xulo yow sëñ bi obligation yoy nga wax dama la mosoo gis ñuy xulo obligation nit ñi détail la ñuy xulo ñuy la lolu ngay xam détail lañuy xulo mais nit ñi duñ xulo obligation parce que obligation neexul charge la nit ñi détail lañuy xulo motax kérok ma léralal la leen ko très simplement wax leen ay tegtal yo xamanteni lolu dajaleel téméré junni borom xam-xam kenn du ci mëna weddi xaraf mu leer simple ku nekk dem. man leen mais yéen xana da ngeen abou bakari sidik mustafa bi rek abou Aboubacar du julleem nangul kan la julleem nangul. man leen bobu doy na. Saïd ibn Musayyib ñëpp xam na ni mo gën ci taabiyaan yi nee 40 ans déglul bu baax 40 ans tardé wul benn waxtu julli te nee fu imam fu imam bi taxawé nee day gis dokk imam gi fi <laughs> quarante ans tardewul benn julli te julli yëpp ci mbooloo mi ci gannaaw ilmaan la ko julli premier sàpp sëñ bi koñ bi kooku kooku du kooku du morom kooku du morom kooku record la sëñ bi dañ ko war a bind ci Guinness mos tay yëkkati loxo man leen budul loolu ñëw leen fii Cheikh El Hadj Omar Fouti xanaa doy na musul yëkkati loxo Cheikh Tidiane musul yëkkati loxo maam alaaji Malick yëkkati musul yëkkati loxo maam alaaji Abdoulaye Niass yëkkati loxo man leen ouverture bi ñu am am ci seen i njaboot ñu yëkkati seen loxo te waxuñu leen dara mais ñëpp waruñ ko am sëñ Hadj Touré du yëkkati loxo ak i njabootam du du du taal garage Malick së tegu waxuma la sax loolu mais doomu mama Hadj malik ci doomam yi gën a màgg gën a tedd Alhaji Abdoul Aziz moo ko yar te day xabtu mama Alhaji Abdoulaye Niass doomam Baye Niass day xabtu day yëkkati loxo te Baye Niass xëyul xabtu. Baye Niass juddu dafa juddu di satlu ba nekk magum jëmm di soog a xabdu waaw man leen léegi bu dee da ngay taxaw di saaga xabdu kii di saaga satlu waa léegi kii juddu ba am 40 ans wala 50 ans commencé xabdu léegi julleem yam satloo nu ñu koy def nag. Hmm? waaw léegi yow sa mbokku tijaan yeneen yi nga xamante ne yow xamoo la ñoo ngi ci Souran ñoo nga fa ne te ñoom ñëpp di xabdu noonu leen di def. yooyu amul yooyu amul solo amul solo xam nga lan moom solo hmm. mooy nga julli yàlla nangul la waaw man leen eh, eh, imaginez vous quelqu'un koo xamante ni dañoo dagg ay loxoom mënul xam ku ñu ku ku dagg lo ku fii wala ñu dagg loxoom fii hmm. mënul xam nu ñuy def ak moom kon julli wérul man leen yooyu amul solo li am solo mooy nga taxaw jëfe ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu sang bi day un

ban jëf moo gën yonent bi du ko wax jihaad parce que mënul jihaad <laughs> lu mu koy wax julli ci waxtu koo xamante ni tey jii moom amul dara mënul dara par exemple il def feebar mais il peut s'occuper de ses parents du ñëwee laaj yonent bi lan moo gën yonent bi du ko wax julli ci waxtu du ko wax ne ko jihaad lu mu koy wax toppatoo say waajur ponkal mi nga xamante ni te xelam neexul am na yu bëri mënu koo lijjanti mënul mokkal dara mais kooku il n'a que sa force

Parce que le message du prophète, ça transcende le temps et l'espace. C'est un message qui a programmer toutes les générations, programmer toutes les civilisations, qui préparer toutes les cultures, qui préparé l'islam yonent bi bu ngay wax suk ab nit ku ñuul amna lo loo amna ahadith xam doo lire da ngay xamni li Afrique la ñoko mom da ngay gis ay message yo xamante da ngay xamni wa Asie ñoko mom lolu day woné l'universalité et l'universalisme du message mohammedien lolu moy mbir mi su ko defee lolu yaakaar na suñ ko xamé euh, yaakaar naa dinañu am lolu ndaw soosu am moy la paix du cœur la tranquillité euh, nga yéene ñëpp jamm ah. euh, xamni yalla dal li waaj a waxoon daal only God can judge me jeex na yàlla rek moo mën a jugé waaw alaysa allahu bi ahkamil haakimin yàlla rek mën a jugé dañuy coow rek ñun ñëpp mais kenn xamul fooy jëm njortu ñi mag même ñi ñu yaakaar njortu bu rafet rek la ñu am ci ñoom na kenn xamul fooy jëm dañuy coow rek am na boo xamante doo fa toll da dem wéet fee jooy sa diggante sa borom kilifa yi ñoo ko dàq ñoo dàq jooy ñëpp <laughs> maa la ko wax maa la ko bi may nekk lycée loolu dal na ma kii kilifa goo may taalibe foofu ndeysaan ah, te léeg-léeg moom daal guddi daal nañu daal nañu gisee daal nañu gisee taalibe bi eh, taalibe bi nekk foofu ci lycée di wax ne moom mooy yàlla waaw te son borom seede na bi bis bu ma xëyee dégg leen ñuy wax loolu man leen waaye bàyyi leen li ngeen wax waaye bàyyi leen bu leen waxati loolu loolu ëpp na waay saa yi hmm. waaw man leen man leen yàlla biram du daw loolu laa leen wax keroog c'était pour ñu yeewu quoi te loolu ma wax tamit man xam naa ni ñoom du ñu yëngatu ndax loolu may wax xaqiqa la xam naa ko du ñu yëngatu ndax loolu lu wér la ndax sëriñ ba ci boppam bi ñu toogee di waxtaan dane ma man fan yëpp sama yaram neexul ma ne ko lan la mu ne ma sa mbiir day daw rek lu leer laa leen di wax mu ne ma fan yëpp sama yaram neexul moo tax dew ma fenn ndax sama biir dafay daw rek déet dama leen ko junj rek waxoo leen ne ni seen doo leen waxee ba tax waaw euh, mu ba kii nag après mu ne ma man daal fan yi sëñ bi sama sama xol neexul dara ma ne ko lan la mu ne ma man damaa ragal bàmmeel loolu je di jooy jooy jooy jooy jooy ma man daal lii laa nekkee heure sama xel nekkee rek sama adduna yëpp day tasaaroo day jaxasoo waaw ma ne waaw bismillah waaw day sànni ma ne gis nga nit ñi kii ñuy jiiñ naan yàlla la ah moom day jooy la nekkee su toogee ci mbooloo mi nag il ma nga le grand le kii mais du wéete day jooy am na nit yàlla kilifa yu bëri sax doo leen toogee di leen tagg ñoom seen biir xol ñoo ngi tuubal yàlla allahu akbar ñoo ngi tuubal yàlla <laughs> parce que yow yaa ngi am njort bu rafet ñoom mais xam ñoom moo ñoom xam na ni seen borom xam na leen mm-hmm. yàlla mu sirra wax fa yàlla ñu yàlla boole dimbali yàlla ñu yàlla boole sutural yàlla yàlla boole xëccal yiw àdduna ak yiw àllaaxira yombalal ñu suñu yëngatu te yàlla defal ñu mbootu ihdina siraatal mustaqim maa ngi leen di wax ne leen jamono ji mm. jamono ji ku yabu nay góorlu ci di insisté ci julli di bàyyi xel ihdina siraatal mustaqim maa ngi leen di waatal ni ku yàlla gindiwul li nga xam ne billaahi laa wax ñi gën a jàng ci diina ji tey ji ñoo gën a réer c'est malheureux ñi taalibe yi gën a jàng de Alfiyat ibnu Malik jàng ba Xalil ñoo gën a réer ñooy topp ñoo xamante ni kenn xamul lu mu te mënoo leen cee dindi ndax yow ñoo la daq jàng fooy waxee ak moom tey jii bac plus huit yi ñoo gën a kon ñëpp bac plus huit te mënul raisonner normalement c'est grave kenn mënu leen a gindi sooy wax ak ñoom mënoo wax ak ñoom ñoo lëpp xam-xam ñoo la gën grave ñoo lëpp diplôme ñoo lëpp salaire foo leen di waaree fooy wax ak ñoom kooku yàlla rek intervention yàlla mbootu ihdina siraatal mustaqim su la ci yàlla sóobee rek nga jóg yàlla nañ ci yàlla sóob bi ci des tamit mooy sutura yàlla nañ ko yàlla defal maa ngi leen di waatal ci yàlla ne àdduna bii ku yóbbu foo toll di ñaan yàlla sutura nañ koy ñaan mbokk yi nañuy ñaan yàlla sutura mbokk yi nañuy ñaan yàlla sutura mbokk yi ñaan boobu moom la Cerno Seydou Nour daan ñaan moom la sëñ Moustapha di yoo àlla suureen yoo àlla suureen billaahi ñaan gaa ngi soog a baax baax baax baax baax soo dee gaa yi saaga la xanaa Bruno Diatta moom laa déggul ko saaga sëriñ si sax xam ngeen li bu baax dem leen ci commentaire yi dan lay daggal ba suba ba ngoon Bruno Diatta daal laa gis ku moom lañ saagawul ci réew mi man ko dégg ngeen ko ko saaga Bruno man dégguma ko li ma bëgg a wax foofu mooy nan def attention gis ngeen ndaw si ndaw si faatu Zeynabu Faatu ndaw soosu te nga xamante ni musul gaaral kenn musul xas kenn musul xas benn nit yàlla wax xam-xamam dem yoonam wax ju wóor wax ju dëgër lay wax wa qul na qawlan maarufan la yàlla wax jigéenu yonent yi gis nga ji suñ ne jigéen du waaraate déedéet jigéen mën naa waaraate mais li ñuy bañ mooy nga ah, asalaamualeykum mbokk yi ñoo ngi leen di ziyaara di leen euh, tàggatal ci sunu jotaay bu am solo bi tabaaraka di yëkkati seen loxo ñuy xool loxo yi xees lool loolu wax moo xaraam mais Zeynabu Fall du doon wax wa qul na qawlan maarufan na lan def wax ju dëgër lay wax. mais Aïcha radiyallahu anha du moo jàngal gars yi. Ah, ci lu pour ah, pourquoi jigéen moo jàngal. waaw donc am na ci loo xamante ni il faut faire très attention jigéen ju doy waar a Full fayda la doxal wax ju leer lay wax ci diin dem yoro muso deg mu garal ben nit yalla muso mm-hmm. deg mu wax lu safan day wax lu bax rek su pare dal dem yoro yalla ko yalla yeureum mais gis nga limi bax bax amna ci ñoo xamanteni pour avoir raison ci ay wax yu xam ken xamul lu doon mm-hmm. mais c'est audio privé dañ koy publier lolu au nom de quoi yow nit ki febar tudd ci lalam wola ne la señ bi defal ma ñaan ndax nangam nangam moma dal mu dé nga jël ko publier ko ci facebook publier ko ci youtube

Nous devons faire attention ci li ñuy wax li ñuy mhm. téléphone day hein? day dañ koy euh, da ngay da ngay accidenté xam ba lu ñuy rek normal nit ñi amuñu sutura dafa benn mbokk Abdourahmane la tudd ñoo bokk nekk lycée ñoo amandoo bac dafa faatu ba page Facebook mais alcorane rek ca diine rek su ci waccoon ay doye di ay ñàkk fayda tamit kenn ko moo yor mot de passe moo yor léppam deer ku koy dindee ci xanaa Facebook amatul mais ba tey jii page baa ngi dox mais lii rek a ci nekk diine rek a ci nekk ay photo Madina Makka l'islam waxta waaraate ci yàlla kese ca nekk man leen lii mooy page Facebook bu baax mais page boo xamante ne nga jël ay doye wax ci ay doye def ci ay jëfi ñàkk fayda partager ay doye di soo dee tamit kenn du ko mën a dindi fii sax ba faw yàlla nañu yàlla defal njub moo gën a jafe yàlla nañu yàlla defal sutura àdduna ak àllaaxira jaay Seydina Muhammad ne euh, euh, Thierno Omar mi moom mooy wax ne ma Thierno Mahmoud Dia dafa dem Thierno Seydou Nour ne ko damaa bëggoon nga firil ma wax yi ngay wax yàlla su ren yàlla nañu yàlla suturaal Thierno Seydou Nour ne ko ne ko ku yàlla suturaal kan moo mën a xaawi sa sutura personne Hmm? ce que Dieu fait, personne ne peut le défaire. Qu'Allah nous aide et nous assiste. comment s'appelle nous décédé euh, <laughs> bu déglu si réseaux sociaux yi Iran daal témoignage mu def si moom damaa ñëw boo xam ne man sama bopp ma fàttali ko lu bari wax ni depuis bu mu traversé bi nekk président de la République du Sénégal mu ne kenn ku dégg ni mu ne def sëriñ si que ne ki leen jege chaque jour liggéey wala diw wala nañ ci liggéey ba pare ñu doon rek jàng bu ñu xam ni am c'est un si si c'est des leçons dëgg la dëgg la mën dëgg la dëgg la dëgg la jong dëgg la di ko bàyyi xel. vraiment le témoignage boobu mu def. dina hmm. ndaw si euh, Bruno. Hmm. par rapport ak rapport yooyu di nit ki am ak kilifa. sa lament bu baax dëgg la te salaam yi dafa am solo. dama wax toujours dañ jël sax du téyewoon du tëjoon gémmiñam kenn du ko jàpp jël ah <laughs> jël du téyewoon téyewoon gémmiñam kenn du ko ons kenn du ko ah. <laughs> aa waaw yàlla yàlla boole di mbëri <laughs> toujours dama koy wax ma ne yàlla soo gisee ñaari nopp la ñu defal defal ñu benn gémmiñ loolu mooy wane ni li ñuy déglu moo war a ëpp li ñuy wax waa aca bismillah Seydi Amar bismillah jàngal xatmu bi